waaleykum salaam asalaamaaleykum wa rahmatulah laay ñu ngi ziar waaw vraiment defe naa kàddu yi mu kàddu ziar bi la jëfe bu baax parce que yëpp coono yi kàddu yi mu jot bu baax ba tax na comme ko noonu waxee mën nañ jàppoon nañu bés ba ñu bu ñu rek da nga mm. mm. ah, ngeen baal ma rek euh, ci kàddu yi ma bëgg a dugal ci ndigalul El euh, Hadj Malick Guèye ñun sang bi ñoo ngi lay seer. ñu yàlla defal la fan wu gudd ànd ak wér. Seydina Ousmane ñu ngi lay seer di la nuyu te dal wax dalal jàmm euh, samay kàddu nag maa koy jëmale ci seen diggante yeen ñaar. ndax euh, leneen li ci jiitu ñii wax nañ ko ba pare te dañ ne wax bu dee benn tam mbooloo bokk suñ bóolante bu kenn waxee rek mu doy euh, tey nag damay wax ne ñetti gan dañ fi daje ñetti ñetti mbokk dañ fi daje mbokkum diine ak mbokkum dëkkandoo ak mbokkum tere kii di Seydina ñetti mbokk ñetti ax yooyu yëpp dafa daje ci seen diggante ndax dañu wax ne mbokkum dëkkandoo bul ko xeeb bul ko bañ bul ko yem mbokkum diine na ngeen bokk bëgg bokk jubluwaay bokk pas-pas mbokkum deret nee na na ngeen na ngeen bëggante yërëmante tey dimbalante kii fi teew nag tey man tey laa ko mos a teg bët waaye seen mbokku deret la seen mbokkum diine la même seen mbokkum dëkkandoo te jàpp naa ne ak yooyu ci ne matal na ko boo déggee ma ne ne seen mbokku deret la boo demee Bawol boo déggee ñu ne teeñ mooy le waa di Bawol yéen ngeen sëtu ci teeñ maafaan caw moom mu sëtu ci teeñ fam bi langaan teeñ maafaan caw di seen maam yéen teñ famille langaan ngoom di nijaayam te yaay teñ maafaan cam donc moo tax ma ne seen mbokku deret la ma di leen indi nag moom ni mu sotoo rek ci teñ famille langaan ndax ker dama diglu yaayam la ma ci gën a nag mu jëlee kàddu sama mbokk ne jëkk ñuy wax ku jëmboo mu ne mi ngi nii depuis Ousmane taxawale nii ba am nag aada bu dox suma diggante ak ñoom moom ni mu sotoo ci ngoom dañ wax ne buur siin ku ñuy wax njàmme ngom moo jur yuq moo jur saanu ngom saanu jur ku ñuy wax lat sukk saanu ngom lat sukk saanu ngom boobu nag moo jur teñ fammi langaar ngom douzième roi Bawol teñ fammi langaar jur ku ñu naan bëkk ngom bëkk jur ku ñu naan yuqu ngom jur saanu xëj ngom saanu xëj ngom jur maa ngom maa ngom anta jóob maa ngom anta jóob jur ma dikkee fa wat ma dikkee fa wadd jur Momadou Ngom Momadou Ngom jur xaddi xaddi jur ko moom mi ba pare nag teñ fa la nga moom di nijaay teñ maafaan caw mi leen meñ teñ maafaan moo jur ku ñëw nag Samba Ngajal maafaan caw moom dëkk dëkkoon soxna suñu naan ñu ngi ca àll ma ca gaawal yuusu la déggee mu di ko way jigéen bi man góor a bu am moom biram biram jur xaayaan xaayaan jur sombel sombel la jóge woon làmbaay na dañ ko woo ci sawu jant takkee làmbaay ñëw puut jóge puut ñëw yoof ba mu ñëw mu samp am doom di neen décce caw mhm. décce jur Alassane ak Seyni mhm. Alassane wàcc di liggéey ca nguneen Seyni samp kër jur Ibrahima Ceewi Seyni ma Ceewi Seyni ma tàndu mi xariñam ak Alassane mu tudde ko seexam frère am ba wàññeeku mhm. Alassane boobu moo Limaamu ak juróom jur ñu ne ñii loolu laa leen bëggoon a leeral di am na moom lu ma koy dénk amit loo xamante ne nit ñi dañ ko gis ci moom dama ne kii kuy su bor ba daj ko bàyyi ko keneen koo jàpp danga ko bàyyi kuy wër jullit ba daj ko bàyyi ko keneen koo jàpp danga ko bàyyi wuti keneen ku ku doylu ba jàpp ko bàyyi ko koo jàpp danga danga ko bàyyi ñëw ci moom ndax sëñ Abdoulaye daf daan wax ne doylu moo gën a bari ndoxum géej waaye dëgg moo gën a yaatu suuf te loolu lépp nag dajale ci moom donte nag mosuma koo gis waaye damay diglu damay yore nopp di diglu nit ñi di wax may jàpp la ñuy dégg waa may la ñuy wax ma di ko diglu kon as gor a nii ñëw nag ñëw nga ci sa biiri bopp yal na yàlla sàmm la sàmm sa njaboot li ngay yóotu yàlla na nga ci jot ndax làmbaay jéem a jóge boo demee dëkk bu ñu wax camaan ngom ñaari buntu a fa bi bu santu ngom mboolay sant waxtaan wi dafa xat ba la indi aada boobu bu su nu dajawaatee ci beneen bërëb dinaa la ko leeral ndax man sama doom moo la nekkal làmbaay Moussa Mbow Moussa Mbow sama doom la bu defee day ñëwaat fii te jamono yi nañ fi jamono yi maa ngi koy mu ne mi lay monté foofu ay cellule li ma lay dénk nag dañ ne jëwriñu tool la tool nag dafa am juróom ñu ca am yoo xam ne boo ko sàmm rek sa na bi tool am na jànj ab jànj dara du fa waaye duñ ko màpp del day di na taataa boo xam ne ndox moo koy daje bu tawee wala ndox may daje gàncax xam du mag waaye bul ko sëkk bàyyi ko sëb jur di fa naan tool am na garab gu mag am na garab gu ndaw am na mu ñàkk xam nga jànj mi mooy ñan ñu nga doon jàngatoon ñu am diplôme yu toll ni yi nga am wala yu ko ëpp te cër bi la yàlla séddu séddu ñu ñeen doon dañ leen woo di waxtaan ak yow bu ñu génnee war a régal seen karawaan ni sama waay la du def lu mu ëpp waaw taataa mooy li nga xam ne yàlla def leen jox alali adduna te defuñu lii ngay def ñooñu mën nañ la jàppale mën nañ la yàqal mooy mooy mooy mooy taataa garab gu mag gi mooy borom ndomboy tànk yi dañu am la ci yow ñag bi mooy kilifa yi yi ñoo leen ñooy ñooy fa coow la nekk nag mooy garab yu ndaw yi nga jëkk mooy médital foofu foofu la mooy coow la nekk waaw te borom xel ñu juum nag foo ko fekk aw yoonam day dëng waaye borom xel mu dëng foo diggante bi def li ma bëgg a wax yëpp mënu ma ko mënu ma ko yàlla yàlla sàmm kii nag mu kii nag nii moomu ci dugal waa Ibrahima Thiaw Seyni moom moo wax léegi mooy maamam Ibrahima Thiaw Seyni ak Alassane mi maam yi ñoo bokk ndey ak Ibrahima Diop Seyni moo jur ku ñu naan Alassane Roqay Diagne mu jur Binta lay Thiaw Binta lay Thiaw jur waajur wu jigéen ngeen baal ma yàlla yàlla fay ñeenti fan la ñu nii ñu koy dox ak euh, sëñ Assane mm-hmm. waaye ak soxna neen tamit mm-hmm. ak ñu fi nekkal ñëpp ci yoon mooy fi toog suñu doyen bi doyen jël mm-hmm. waaye appel bi moom appel la rek appel la boo xam ne yàlla daf koo dajale ak uyu si moo tax bu xewee dina jafe léeg-léeg lu bëree bëri bëri ci xew diine yi suñu ñëw am lum ci jur ci loo xam ne mun nañ ko méngaleeg lu bokkul ak moom moo tax tey ñu bi ñu xëyee rek laa leen woone leen bari defe naa démb bi ñu mujjee wax ci suba laa leen ne comme demee na noonu te journée bi dina xat ndax kilifa yi dañuy déplacé wu am ci yeneen bërëb bu ñu war a dem nañu bay ba ëllëg ñu ñëw ziyaare ñëw uyu si ni ñëpp uyusee waaye dañoo ñëw suñu kër ndax jëmm ji yàlla def na mu am lu ñu boole te Sénégal yëpp xam ko waa kër gi xam ko waa Yoff yëpp xam ko waaye bi ma dégloo suñu papa jee wax ba noppi xam naa ni du neen ndax euh, bokkoo gi ndekete gën gën naa yaatu loolu ñu ciy sant yàlla léegi daal ku wax Sonko nag ci teg laay-laay ndax ci bokk am naa ci <laughs> kenn ëppalewu ma ci dinaa ñëw réclamer sama wàll nag <laughs> actionnaire la kon fii gulet ñu ñëw fi te saa fi ñëw it fi fekk lañ diñ fa daan fekk rek lañ fi fekk wala lu ko raw sax ci dalal gu yaatu ci ay kanam xar kanam yu leer eh, ci waxtaan gu xóot ak ci ay ñaan yu ñuy yóbbaale kon sëñ bi eh, dellu si nañ niñ ko daan defee buñ ñëwee nag ñëwalaale na ñëwalaale nañ ñu bari ñoo xam ne yàlla dafa def fekk dafa def ñu bokk ci li ñuy yëngatu te ñi seen yaram sutante ku mel ni doyen Habib ak euh, déj président Déthié Fall nga xam ne fi mu ne dañoo tawat ña ca des it nekk ci tukki ku mel ni président Khalifa sal nga xam ne ma nga Kédougou ak ku mel ni présidente Aïda Mbodj mi nga xam ne ma nga France fi mu toll nii ak ñeneen ak ñeneen ci ñuy bokkal ñoo xam ne ay ngànt ñoo leen tere ñëw waaye su ma fi ñëwee dafa mel ni ñëwaalal naa leen rek ndax mbir mi mun nañ ko jàppee fardu kifaaya ñu ñëw ci lu màgg li nga xam ne ci événement yu mag yi la fii ci suñu réew muy Sénégal ndax yàlla daf ñoo may lu bëree bari ci Sénégal te xeebuñu ko te muy loo xam ne bokk na ci li tey réew mi boobu ba léegi damay faral wax ni Sénégal buñ ko bàyyi woon ak nitu Zaïre yi dong kon heure bi li xew fu bari ci Afrique xew na fi jaasi génn na walla fetal génn na walla leneen lu demee noonu waaye yàlla daf ñoo may réew mi mu teel a toog nag ci diine diine gi ñu bokk ñun muy diine jullit waaye diine gi ñu dëkkal gaaleel nag yi ñu dëkkaaleel te bi ci gën a fës di diine chrétien yàlla may ñu mu tooge ci diine waaye may ñu ay magu diine yoo xam ne dañoo teel ay tàggat Sénégal ak sénégalais yi ci jàmm ak tolérance ak mën a cohabiter di dund ensemble kenn kenn ku ne nangul sa moroom li mu doon loolu mu manqué fu bari ci àdduna ba tax gis nañ li jur ci musiba moo tax nit ñooñu nga xam ne nit ñu màgg lañu ñu leen di màggal nii ñu leen di màggalee di leen jagleel ay bés waaye bésu at bi yëpp seen bës la daanaka suñ leen jaglelee benn bés màndarga rek lañ ci wut waaye bësu at bi yëpp seen bës la bés yooyu nag di bës yu am solo fii ci presqu'île di Cap-Vert fii ci dakaar di capitalu senegal liñ ci gën a ràññee mooy bës bi kon day jaadu képp kuy sénégalais bu ko mënee mu ñëw teew si bës bi mm-hmm. rawatina nag ñun ñi nga xam ne yàlla natt nañu ñu am lu ñu jiite ci ay nit ci beneen fànn kon suñ ñëwee fii dañ fi teewal nit ñooñu ñëpp nga xam ne tey ci mbirum zaahir bi ñuy dox seen yaakaar teg nañ ko ci ñun muy partie bi ma bokk waaye muy sympathisant yi nga xam ne yëpp tey ànd nañoo ñun di leen feddali suñu colère it di leen feddali suñu colère ndax yéen ñu ko ji ñëpp xam nañ ni réew mi am na nu mu tëre am na nu muy doxe te léeg-léeg nit dina toll foo xam ne euh, dina bëri ñoo xam ne dinañu am ragal lu ñu ragal ci doxalin ak jëflanteeg moom waaye kër gii de balaa ñu fi ñëw sax won ngeen ñu lu rëy rëy rëy ci ubbeeku ak ci yëg-yëg rawatina bi ñu fi tegee suñu tànk la première fois ak yeneen ñu fi ñëw yépp ba tey ji kon colère googu ñu ngi koy feddali suñu diggante yow euh, di ñaan yàlla mu gën koo dëgëral ñaan yàlla bu ko dara yàq ñaan yàlla yit lépp loo xam ne ñu ngi koy liggéey di ko mbébét ndax li ngeen di liggéey ak li ñuy mbébét ñun lépp benn la mooy luy defar réew mi luy xettali jaam luy oyofal yenn bi ci kenn ku ne ci ñun luy fexe ba Sénégal ñu jëlee ko fi mu ne yóbbu ko fu ko ñëpp di ñëwee ci wàllu àdduna ak ci wàllu baatin ci wàllu koom-koom ci wàllu social waaye ci wàllu diine ak ci wàllu jikko moo tax ñaar yooyu mënuñoo ñàkk di déggoo ak di ànd te mu doon loo xam ne dafa war a nekk lu sincère lu doon loo xam ne kenn ku nekk yaakaar nga ni mun ngaa jëfandikoo ka ca des man de jàpp naa ni suñu diggante wala sax am naa yaqin ndax dama koo gis lu sincère la lu dëggu la ndax toll nañ fi ay diggante yoo xam ne ah wax ngeen ci jëf ngeen ci jël ngeen seen téléphone wooñu saa su ne na ngi nemmeeku di ñu massaw seen doom gi yónnee ngeen ko plusieurs fois mu ñëw kër ga nemmeeku ñu seet ñu massawuñu kon diggante bu lalu ci dëgg la te ñu ngi ñaan yàlla mu gën koo saxal di ñaan yàlla mu may ñu bës bi ñu teewaat ko lu yàgg yàgg yàgg ay yoon yoon yoon te saa suñ ko teewee rek mu gën a yaatu gën a neex eh, eh, gën a mate liñ ko doyee mu doon moment de communion de commémoration muy moment boo xam ne rafet na ci bët ndax ku gis image yi sax sa day sedd waaye muy moment boo xam ne it ci discours yi ñu ciy dégg di ma moment yoo xam ne dafa am solo ci réew mi ndax dañuy delloo si xel waa réew mi ci l'essentiel te lépp tegu ci dëgg ndax discours yi ñu dégg yépp weesuwul dox jàmm jëf jàmm te jàmm li ko gën a yomba maye mooy kenn ku ne may ko sa morom discours yi ñu dégg yëpp weesuwul loolu weesuwul delloo si xelu nit ñi ci ñu gën a cultiver loolu gën koo saxal te xam ni léegi da lañu dégg ñu ne yàlla may nañu pétrole wala gaz wala zircon waaye suñu matière première bi ëpp solo mooy jàmm te fu mu ñàkk rek di nga tal leneen lu dul loola gis nañu réew yoo xam ne amul lu ñu amul ci richesse lu mel ni Zaïre li mu am Sénégal amul un millionième bi sax ci richesse jama euh, euh, or leneen ak leneen waaye jàmm fa ñàkk moo tax loolu amu fa njëriñ ñu gis ko feneen ak feneen kon lu waaye am te amoo jàmm rek dafa mel ni amoo dara waaye jàmm nag lu ñuy dox la lu ñuy saxal la te ñu ko seq yëpp war cee def ay jéego te loolu la ñu dégg ci waxtaan yi moo tax daal ñu ngi ñaan ngeen jottali suñu nuyoo kilifa gu mag gi jottali ko waa kër gi yëpp wax ni dégg nañu it seen yóbbal te dinañ ci góorgóorlu bu baax a baax ndax yàlla may may nañu ñu am ci cër te it ba bëri ñu ñu dégg di ñu topp di dalal seen xel ni ñun jàmm rek lañu bëgg te kenn mënul génne benn preuve ni ñun mus nañoo jóg dox safaan wa mooy dem dal ci nit wala def naka sudul noonu xanaa ay léeg ñu dal suñu kaw boobu métti ñu ne nag jot na ñu fagaru te gëwma ni loolu waroon ak jàmm waaye nañ ci gën a góorgóorlu dégg nañ seen yóbbal te nangu nañ it seen discours ndax lool rek lañuy xaare ci nitu diine yi dañu wax islaam ku wax islaam wax salaam kon ñu ngi leen di gërëm bu baax ci dalal bi di leen dellu ñaanal yàlla yokk seen wér-gu-yaram bàyyi leen suñu kanam lu yàgg di wax ami nit ci ñaan di leen ñaanal sutura ak uh, njaboot gu barkel waaye di ñaanit yéen bi nga xam ne yéen nañ leen ko ngeen war a yor kàddu kër gi te du lu yomb yàlla na ko yàlla yombal ci yéen salaamaaleykum wa rahmatullahi wa alhamdulillahi rabbil alamin salaatu wassalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu na nga ubbee ci yàlla mi nga xam ne moo ma bind moo la bind lu am rek yàlla li nuy ut lépp yàlla ko moom moo koy may innal fadla bi yadillahi yuti iman yashaa wala zul fadlil azim ka ngëneel mu ngi ci loxol yàlla moo koy jox ku ko so kon yàlla moomu ci lañuy doore ci ubbee baat bi nga xam ne moom la taamoo ubbee ay kàddoom alquran bismillahi rahmani rahim la yàlla jiitale ci ay kàddoom digal nu nag nun ni ko di ko ubbee sunuy kàddu ak sunu jëf yëpp wax yonente bi ne ni kullu amrin zi baalin lam yubda bismillahi rahim wa naaqisun jëf joo xam ne yaa ngi ciy dugg muy wax muy jëf te di ci loo ci rahim wax jëf jooju moom barke ba dog na di ñaan yàlla barke boobu nag olof naan bari la barkeel lee sunu kàddu yi mu néew mu bari yàlla na ko yàlla barkeel sunu jataay bi yàlla barkel ko Euh, di la dalal jàmm ci kër gi nga xam ne du première fois bi xanaa kay dañuy wax ne ku boot bukki xaj bëw la <laughs> xëy na daa nga fi ñëw ba dem du bari riir waaye tey dafa am lu lu si loo xam ne moo war a riir mi bari ndax appel ñëw nga fi fekk ma ca suuf saal ba ca suuf ñuy pare dem cérémonie officielle boobu yow rek ya ànd wala xëy na ñeen nga àndal bariwul ñuy déeyante jëflante ba nga fi jëkkee ñëw timis laa la jiite man sama taawu yaay ñu fa jógee la riir wa ndax si lañu attaqué sa kii ba fale ay symbole la yoo xam ne wane ne tey du la première dégg nga bi njabootu sëñ Ablaay génne àdduna da nga jëkk Cambérène nga ne leen nag damay seeti suma xarit porte-parole bi nga ñëw ndeysaan ñu waxtaan jëflante nan daan def rek a ah, kon boo fi ñëwee tey doon nga ko waaj fekk dëkk bi xat si ngay xam ne am na soppeeku gu am loolu nag dañ koy nangu nit bu dee da ngeen am da ngeen am diggante da ngeen am ak bu jamono changé rek da nga koy topp ca noonu am na waxeek moom. ngir lool bañ a doon lor ci moom lu dul doon xéewal ak jàmm ci moom ndax man xat-xat ñëw na si man tey sama xalifa ngi tëju génnul moom noonu la ko yàlla binde ki topp ci moom imam Bachir daanaka ëpp nañ fanweeri at génnul yàlla jël nattu bi nag yan ma ko nattu la xam nga li nekk ci jiite mbooloo nattu bu rëy la sax boo waxee jàmm ñenn ñi def ko safaan Hmm? Mhm. ah boo waxoon safaan it ñi la bëgg daal di koy def jàmm noonu laa dina tëdde bu ko defee daanaka ñoo xaw a bokk nu nuy dunde mais man comme yàlla baax na déglu nga sama discours booy seet avocat sam Sénégal la man dama taxaw taxawaayu sol mbubu avocat mhm. di del samam réew man mhm. muy Sénégal donc acteur yëpp ku ne war ngaa mën a déglu sama waxtaan ndax jàmm tey kenn ñaanul yàlla jiite réew moo xam ne fitna rek a fay am doo xam doo ànd sago bi nga bëgg a jiite sax doo ko kon li ñu war ñun en tant que niti diine te bu neexee ah alhamdulilah mais bu naqare ñun ñooy dese njaboot toujours boo dégloo samay waxtaan dina ne ndakaaru de ñun ñoo war a jiitu. ci bëggal jàmm réew mi ndax ndakaaru bu doon tàkk depart de feu bi fii lay doon yàlla dafa dogal damay wax naan sama maam fekkewul kenn dañ ko fekk amuñu feneen kër fii rek lañu am bu doon tàkk fan lañu jëm xanaa ne la doo ma fat Casamance waal pour <laughs> ba ma fay ma door ah? ah ah waaw donc loolu la kon fii ñun li nu bëgg mooy jàmm te soo jabootee ñëpp sëriñ li ko tax a sonna li tax sëriñ sonna mooy ñëpp la jaboote fenn fu ne am nga fa njaboot te lu metti la yow li ngay defaan foo toog li nga defaan rek ngay defaan amoo si loo ciy calculer keneen ka loola waaye sëriñ bi ñoom ñëpp mu bëgg na coordonné loolu lépp bëgg cee wax loo xam ne essentiel ba lay lay attirer attention ku ne ca ñooña mooy li boole xam nga réew mi dañu xamul mais ay ennemi amu fi ay adversaire politique ñoo fi am lu leen lan moo indi loolu mooy ne dañu bokk benn bëgg bëgg mais pourquoi ñuy xuloo ko xeex ak i dara ente benn bëgg-bëgg mooy defar Sénégal bu fekke looloo nu animé laa wax de xawma leneen na leneen mën na nekk parce que nit dafa lëndëm mais bu dee li nu animé lenn rek la mooy bëgg Sénégal ñu mën a jote bu dee itam ay jullit lañ doon ay chrétien ñu gëm benn yàlla gëm ne moom mooy maye nguur bu la doon fekk ci mpaxit dina la fa génne jox la nguur kaaw Nelson Mandela daf muy yéem ba tey ku jóge ci prison nekk dem dugg ci palais vingt cinq après vingt cinq ans après yooyu ay njàngat la yoo xam ne nit ñu ñuul ñu war nañ ci bàyyi xel beneen bi euh, dafa am beneen tubaab te bataa lañ wax defe naa mu ne nit ñu ñuul ñi kolon yi sax xamuñ ne ñoo gën ci ñoom ndax ku leen bàyyi woon ñoom ci seen biir duñu fa nekk lu dul xeexoo rek ba def tënk dal sax seen développement loolu war nañu metti beneen bi ñu ne dafa am tubaab yi ñoo koy nettali noo ko sabootee man ba ma demee Maroc di jàng gis bu ñu rombee ñu duñu traité da jaam laa ne ñii de xàmmeew ñu surtout maam lu maam ak bu sëñ Tuubaa ordinaire ñu génn ñu nazi la nga tàmmoon ñu di la màggal di la teral di yóotu sa loxo di foon ma ne ah lii daal war naa tax ñun ñëpp ñu fonkante ñun ñi nga xam ne xeet ñuul la lan la ñu weex ñi bañ ñu ñuul ce que ñun ñi nga xam ne ñooy xëccu pour yor suñu réew yoreen wu rafet est ce que waroon na bàyyi xel loolu te xam ne bu ñu demoon bay xiiroo xa ngaayo ña ci biti ñoom ña nga ñooy reede nii rek la ñoom ay dof lañu ñoom xamuñu lu dul xeex xulu te yoruñu dara lu doy damay faral di wax ne nit boo meree sax am na noo mën a fisale sa mer te doo yàq parce que li nga yàq yow yaa moom du dëgg li nga yàq yaa moom ku yor dara nag di ko xeeb boo ko yàqee foo jëm ka nga yaakaar bu ñëwee defal la la nga bëgg boo fi fekkul dara nan la la koy defale nit loo amul mënoo ko maye te lii lañ mus di wax nit ku ne nag sañ nga loola naqari nga taxaw yëkk sa kàddu wax ca du dëgg miin ni ñuy bàyyi xel réew mi dama wax barke démb ne ndaw si jëkkër ji da ko dóor mu daw di làqu ci si baay bi baay bi fax xëyar dóor ko naka soo demee neen sa jëkkër moo dóor sama doom jóor naa jabaram baay bi foofu cëru doom la mais dafa bëgg a wax jëkkër ji nekk kii nga dóor sa sama doom la de waaye yow yaay jëkkëram nekk nag dóor na sama doom dóor naa jabaram ane dóor yi kan lay metti mm. du si ko jigéen ki loolu laa bëgg attirer attention sénégalais yëpp que nañu bàyyi xel Sénégal que nañu bàyyi xel ne fekk amuñu jàmm la xew fële ci euh, Russie euh, ak euh, Ukraine ak feneen ak feneen ba tey yàlla ngi nuy suturaal Sénégal li xew ci Afrique sax yëg seeg fi lan na moo ko waral mooy mag ñi nee naa tey la xam-xam gën a bari waaye tey la dëngate gën a bari tey la ñeme yàlla gën a bari lu tax ñu ne mag ñi dañ daan def bu ñu la jàngalee pare defal la tarbiya yar la kon yéen muy ñun muy yéen ñun dañu war a yar njaboot yar leen mooy tax kenn ku ne boo jógee di ut danga xam fi ngay teg sa tànk fan la ngir booy dox si fu tarxiis do përëx përëxi ne kon nga tarxees daan da ngay teg sa tànk ndànk di teg sa ndànk ba egg fi nga bëgg yàlla kon wóllëre gii dox sama digganteeg yow muy lu yàgga tey nag xëy na tey ñëpp nga ne tekk na seeti na Mamadou lamin barke démb ba dégg nañ li Mamadou Lamine wax ndax dina waxaat leneen benn wax berk laay wax fanaa si loolu nga ma xame ci loolu nga ma nawee maanaam nitu dëgg nga sa dëgg danga koy wax muy lëndëm muy leer muy nëbb muy feeñ du dëgg naan instant bi comme ñoo xewle appel discours déglu nañu suñuy discours ñu ne ah, bu sonk ñëwee nag nan lay wax benn wax rek laay wax mooy ne senegal monuña beneen bi ñun ñoo war a nekk ñun sëriñ si avocat Sénégal parce que ñoom li ñu yor day jàll ancien président ancien ministre ancien leader de kii yëpp ancien mais ancien marabout bu mës a am tey bu ma dundoon ba génn àdduna dañ naan lii kat mooy armeelu Mamadou Lamine Sétou Baye Laye kon du jeex ginnaaw ñooy dese dese jaboot gi nag nun langage boobu lañ war di tenir toujours kenn ku ne nag la nga def sa digganteeg sa su nit kooka sa digganteeg moom la ak yàlla du dëgg keroog da nga ñëw fekk sama portable daanu kii bi toj nga ne ma ah, sëriñ bi nag waroo yo façon portable <laughs> man ne man ne man yëguma ne sax toj na nga ne ma dinaa la utal benn indi laa nooloo di ma ko seetaan yooyu doxoon na suñuy diggante du dëgg kazalika keneen ak keneen ñun bu nu sañoon Sénégal gépp jubbo te man lu ma ci mën a dox jël naa engagement bu de ñi ma ko séqal ornal nañ ma ñun ñu jóg dox pour lay nekk si jàmm ba ñu egg fa nga xamante nag fa la di folli lu waay gëm di ko kii nga defee ko foofa bàyyi ba dem ci urne yi loolu ngeen soxla yow lool nga soxla n'est-ce pas du xeexam mbedd da soxla parce que du foofu ngay faloo fa ngay faloo nga soxla lu la nit yéene na bàyyi lépp ba egg foofu dem dugalal la carte ñu génn ne loolu nga soxla du dëgg ah waa keneen nit noonu. nguur yàlla koy may moo koy may ko ko soob mais bu koy jeexal ay ceen sax mënulaa téye donc fii benn góor dafa ne dafa toog ak seen sëriñu daara sëriñ bi ne leen waa bu yàlla doon gane ci Sénégal ci ban kër lay dal ñi nakaan jàkka ji ak yooyu mu ne déedéet kër laa wax ah kër xanaa <laughs> yaa nu ci mën a gindi mu ne bu ñu bu ñëwoon sama kër ñu ne fii fan la fekk ma sant jon na ñu ne jonneen yàlla ne bokkuma ñëwee fii ñu ne caw a ah, caw day lu tax ñu ne caw ñu ne boroom kër gi caw la ah comme am na boroom bokkuma man tax du ma bokkaale ñu ne fii kan la ñu ne ah fii day kër la ah moom moom kër gi na ah man nag yàlla duma bokkaale nga ñëw fii ñu ne fii fan la ñu ne laayeen yàlla ne fuy laayeen ñu mooy fi ñu askane yàlla mu ne kon nag fii la bokk kon nag maam limaamu loolu la def këram gi kërëg yàlla defu ko kërëg maam defu ko kërëg doomi maam limaamu wala sëtam maam limaamu kërëg yàlla la ba pare jël nag fi mu tëdd tudde ka jàmmalaay kon fi benn discours rek moo fi war a jub mooy jàmm ji sama maam am na faral bu ma wax bu may faral di wax temps yi la répétition est pédagogique parce que kay bu ko àddina jëpp déggoon dina am kenn koo xam ne mu sa mujjeel wax ci la koy door a dégg l'homme a tout inventé sauf la paix bàyyi ba nga de mu ne la repose en paix wala mere nela la fous-moi la paix mais pourquoi si tàggoo rek la ñuy door door yéenante paix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 ku lay dimbali kuy dimbali képp koo xam ne bëgg nga réew mi nekk si jàmm am teraanga nga dimbali kooku si jàmm li may wax sénégalais yi mooy bëgg goo bëgg nit ki fa mu safe téyel ba nu egg foofu nga def nga def ko fa urne defe foofu la ñëpp soxla foofaay atte mais boo bëggee sa kilifa doo ko indil fitna ndax di nga dem ba xat fépp te fekk amaana sax loolu yëkkiw la amaana sax likku la saw nit ñoo la dimbalewul rek defe naa ndax dégg ngeen bu baax fi may wax donc maa ngi ñaan sénégalais yi mooy nañu dellu siwaat seen xel te xam ne lu dul jàmm jàmmaak gën lu dul jàmm rek jàmmaak gën nit nag booy ànd ak moom da xam kii li ko yëkki lan la nga jàppale ko ca loola waaye doo ko jàppale yow ci ne nga gisee yàlla sax kenn du ko jaamoo ci ne la neexee da nga koy jaamoo moom ci ni mu bëggee ñu jaamoo ko koo fi mën a dimbali bu ko dimbalee yow ni nga gisee mais dimbalee ke moom dama la ma bëgg te defe ku jóg biir ut senegal wala ku yor Sénégal li ñu war a animé mooy jàmmi Sénégal ak xéewul Sénégal lii daal mooy sunu wax. bu cérémonie officielle bi ñëwee ba ma yobalee sama rakkamaan bi baas si loolu rek la wax moo tax àddina gépp nee nañu waa Laayeen benn baat bi lañ am mooy jàmm parce que mooy ñun ñooy waar jàmmalaay donc sunu kàddu gu jëkk ak gi mujj mooy jàmm loolu daal nu ngi la koy ñaanal di ko ñaanal réew mi waaye nag ay effort personnel yoo xam ne moo war a mën a tax loolu am moo tax ñuy wax waar nit ñi di loo si waat leen fa inna zikra tanfaul muminin ñu ngi lay jaajëfalaat parce que tam bi mu demee ba xat sa xel génnul si noonu du dëgg xam naa ne xat na loolu rek signe la déjà daf fi daan ñëw kenn du ko yëg donc bu demee ba ànd ak riir wi tam mu ñëw fi damay xam na kii fa mu tegoon tànkam mu fa balee kàddu yu ma koy yóbbante bu ma xëccee bunte tëj ñu ne ah moom kat lem wax si la muy wax ak moom si biir du benn noonu sunu waxi biir ak sunu biti benn la te yow xam nga loolu si am na loo xam ne nag diggante nit ak nit la ak morom ma mais daal li may wax nit ñi mooy na ñëpp delloo si waat xel yi ba fa nga xamante nag fa la ñuy àttee nag foofaa saf ñëpp nag te yow foofa la saf du dëgg maa ngi gërëm ñëpp di ñëpp ah sunu mbokk mi it li mu fi faram fàcce wax dëgg yàlla sax xaw ma ko woon waaw maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. naa ne kilifa gi du wax sax ñu ciy teg baat. Eh, eh, mm-hmm. taxawal kuréel Mm-hmm. Uh, nitu daara yi mm-hmm. uh, uh, mouvement daara yi Pastef nga xam ne doomu daara yi mm-hmm. ñoo jël initiative ñi ci gis bokk seen bopp ci li ñuy liggéey ñoo jël initiative ne dañuy taxawal kuréel ni mu amee mouvement des cadres am mouvement magi Pastef ak yeneen ak yeneen ñu dañuy taxawal loolu comme nag dañoo ñëw ci këru diine ñoom sax yónnee woon nañu ci kër yëpp nag mm. yégle ko yónnee nañu ay ndaw woote nañu mm. yégle yégal ko waa këru diine fii euh, yoof am na ay kilifa yoo xam ne bo nañ ci comité d'organisation te nañ fa teew tey waaye nag ñu fàttaliwaat leen ko rek ne leen euh, comme suñu projet ñun mm. dafa di projet bu inclusif boo xam ne Sénégalais yëpp la jublu dañu jàpp ni mbirum daara ak mbirum diine lu am solo la pàcc bu am solo la ci réew mi moo tax ñu koy taxawal fas yéene ci mu doon laboratoire boo xam dañ ci xalaat lépp luy suuxat diine ak lépp luy euh, articuler euh, relation yi diggante état ak diine ji parce que donte laïcité la ñu woote waaye nag ñaari réalité yu ne ci dëkk bi la te benn mënul dem bàyyi moroomam ce gannaaw li ko firndeel mooy lii bu amee rek képp koo xam ne acteur politique nga wala ngay acteur étatique li nga sol sa daal la ñëw fii noonu lañ koy defee bu amee feneen kon ñu dalal seen xelit e, ci message bi di fàttaliwaat ni dégg nañ ko bu baax a baax waaye liñ ci bëgg a yokk ci lu gàtt rek li ngeen wax dafa am solo mooy ñun dañoo ji andi projet politique ñëw teg ko ci charte premier li mu wax mooy démocratie conquête pouvoir ci jàmm ak dal ak li constitution permettre wax ak Sénégalais jaay leen projet buñ ko gëmee bu ñu demee fa ñuy tànnee sudee doy nañ leen ñu tànn ñu jaaruñu ko ci voie militaire wala beneen voie sëriñ bi li xaw a ñuul ci mbir mi rek mooy bu dee ay nit dañoo jóg taxaw ne nag diw du egg fa ñuy tànnee foofu la problème bi nekk waaye nit jógee ne jàpp nañ ni ànd naa doole te askan wi ànd naag moom ba dinañu dinañ ko e, faqatal ba du egg fa ñuy tànni foofu la problème bi nekk bu ñu bàyyee ñëpp ci seen teef ñu egg fa ñu war a yegg Sénégalais seet kileen doy ñu tànn ko coow du am waaye ne yor naa sama justice te dinaa faqatal kii ba du egg fa ñuy tànne lim bu takku ci senegal su ma jàpp su ma yàlla sax dinaa ne su ma ragaloon yàlla sax ne li ëpp ci Sénégal ne ñun gis nañu suñu bopp ci lii foofu la coow li yëpp nekk moo tax amrihi d'accord naa ci baaligu Hmm. ay yooyu mu yóbbante la ko incha allah di ko hmm. xam na bu yàlla ne di nga egg di nga bu soobee waxoon nag ne incha allah itam ubbil naa nit xéewal jëm ci moom amul kenn ku ko mën a tey hmm. allah bàyyi xel loola bàyyi xel yàlla soobee waay ma dolli la loolu jërëjëf nga daar loo ko xam ne nit bu ne woon tey di nga dee te sa kenn mënu ci ci dara balaa dootu la tal loolu ma doolee la ko ñun nag ay sëriñ tëju rek <laughs> yor suñuy kurus di non non dañuy suivre actualité hmm. hmm. dañuy suivre faram-fàcce ngir yu mel ni moo hmm. parce que am na fu bu fa réew mi tolloo ñun ñooy génn arbitre ba pare nag fexe fexe ba ñuy wax ñu bañ ci fësal benn par par ndax kat kii toggal la xamoo kan la de. Mm-hmm. def na ku ñëw nga ne sama xarit lay te wax dëgg yàlla noonu ay bor lan. waaw hmm? mm-hmm. xaritoog ñëpp rek. fi mm-hmm. yàlla teg na muy lii mooy cëru nitu diine. am na lu nu seex lu nu wax si am lu nu seex loo xam ne dañuy dañuy wér sax. xam nga portable boobu amaana ñu bari ñu ngi koy dooree. mais c'est juste que dama bëgg a wax ne rek am na yàgg nañu jëf leen. xam nga ku ñëw di la bàyyi loo xel bëgg sa sàkk bu xoolal ngeen ah waa sa portable moom dafa toj dama ne man bon day xam nga man moom ku yóbbu oote rek <laughs> yëgu moon ne sax ah, ko yor hmm. yooyu ay bor lañu hmm. yoo xam ne ay bor lañu munu ko ni defalee daf nuy marqué ah, ma la wax hmm. yooyu rek bu soobu yàlla yàlla rek fi ne la simple bi lu sotti rek yàllaa ci lu sotti yàllaa ci gis nañ ay Firawna yooyu fi jaaroon hmm. Afrique du Sud kenn xalaatul woon prisonnier vingt cinq ans ne mooy dina wëlbatiku yëf leen hmm. ay njàngale lu yàlla jàngale lu tax nit ñi duñ ci bàyyi yàlla Yusufa ku yàlla ne da yegg di ngeen hmm. ku mu ne doo yeggee doo yegg incha allah ñu ngi leen di gërëm jërëjëf leen sant jërëjëf asalaamaaleykum aywa وسلام اللهم جنا بحرمة لا إله محمد رسول الله آمين آمين آمين jërë ngeen tuuti ngeen bàyyi ma gis